seen boutique xelkom xéewal bi leen indil fajum cosaan bu mucc ayib jëm ci ay produits efficaces ci wàllu wér-gu-yaram moo leen ne may seen sketch Koro Baol Média yaa ma noo def. alhamdulilah yaa ngi toog. yaa ngi woon naa toogee moom. Ah, ni mhm. waxtaan si loolu. naa bëggoon ñu ak war a yóbbu marché yooyu. Mhm. xam a ñàkk. dëgg du mhm. ah, rafet la ndax borom bi subhanahu wa daa digle ne ay nit moom bu ñu nekkee nañuy waxtaan bañ te réeroo ci dara te suñuy diggante yàgg na te mosuñu réeroo ci benn mbir lii dañ ko rafetlu rawatina bu weeru koor dëgmal sëy nga xam ne ñu ngi ci agsi na ba pare loolu moom lay rafetlu loolu ko jox bisimilah xanaa nga xoolal waaw weeru koor day euh, ku ci dem ku ci dem nga xam na ngay doxee ci marché bi ndax marché moom loo ci yóbbu lu mu bëri bari du tax mu doy lu mu néew ne tam boo doy loo rek doyal ndax marché moom loo ko jox mën a dolli ma daanaka dañuy wax ne marché jigéen nañu loo ko jox mën a dolli ma ko defee itam boo demee nga xam ne dafa yóbbu ak itam fonk saw yoon def si jàmm ñëw ci jàmm te bañ faa nekk ci dox loo xam ne ne daal du doxi du doxi farat. la incha allah rabbi baax na loolu la ci baax loolu. xaaral kon ma ñëw dem marché. waaw maa ngi dem te ñëw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kay mu ngi a si jàmm baax. naka coono ba bàyyi jàmm ñëw naa. Ah, waaw non maa ngi ci biir nag doon fii xam naa bi ñu doon la fekk nga demoon jàkka ja. waaye ñëw naa ci tey horaire bi moom xam nga dëkk moom horaire bi day xaw a yéex. naa nag bu ñu jul tusbaar ci lay jóg. maa ngi ci biir doon dallu. waaw yéen si jàmm baax. ña fa rek ñi si jàmm baax. alhamdulilah sama yaay ma fa ma ngay tane bu alhamdulilah baarigal mi ngi tamit baax kay sama nijaay Muudu mi ngi lay nuyu mbaa defu dara mi ngi mi ngi mi si jàmm baax alhamdulilah baarigal ña nga fa mi ngi si naka waa dëkk ba yëpp rek. ña nga fa rek ñu ngi lay laajte ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay laajte nañ amu yiw. waaw nañ amu baax ma baax ma nga tane baax dama yóbbu balaa dama ñëw naa ko ci eh, district bi nekk foofu mhm. ñu waaye xam naa daal. Mhm. yaram daal moo xaw a de waaye mi ngi feex daal. Ah, mi ngi feex maa ngi doon wax ci waxi koor gi tax ndax dina mën a woor ak yooyu. Mhm. ndax moom daanaka mag moom daanaka bu jëmee mag dootoo mën a woor. waaw day néew doole moo tax daanaka mënul ah, woor. waaw du mën a woor de ndax moom kenn ku ci ne sa magam bopp nga mhm, mhm, ndax weeru koor saa yu ñëwee mhm. ku mën a war xam nga ku mëntu war xam nga te kenn ku ci ne da war a nekk sa médecin bopp ndax borom bi subhanahu wa taala bi ñu sàkk kenn ku ci ne xam na la ne sa biir xam ne li nga mën ak li nga mënut dëgg la nit ki nag wartu wax ne sama docteur moo a digal mënu maa woor te fekk mën naa woor kon xam naa ñee nga sa ci lum dul woor yow mu ñaax doom mi boo soñee yow lay dal yu bañ bàyyi ma tooñ yu bañ bàyyi ma tooñ man sama nijaay sama nijaay laay jàngee moo man ba may woor rek laa def waaw damay woor de man ko ren gi ngay waajal naa ko sax yu bañ ko ren gi waajal naa ko bu baax daan dinaa woote ya damay woote waajal naa ko bu baax dinaa woote incha allah. mu jàmbaar gisoo ni mu teel a ñëw ni mu waajal si koor gi waaw waaw Ndiaye waaw Ndiaye man ci yow laay ci yow laay xool ci yow laay xool. waaw waaw baax na kon xam naa ñu ci ci waajaay moom mhm. xam naa timis gi léegi mu jot defee ñu bàyyi xel weer wi allah rabbi léegi bu defee ci kanam tuuti dañu julli mhm. buñu ñu mhm. la ñoo xam baax ndax léegi am moom ñu ci séntu bi nañ séntu rek incha allah baax na jërëjëf Ndiaye maa ngi jëlu ci biir waaw baax na jërëjëf delloo lu mu àggale bu julli nga ba noppi. waaw julli naa ba noppi. Ah, sant yàlla bu baax. waaw baax na. tët tët cooro dikkati weer koor gi ñëwati la sama cooro dikkati tey rek laay ay système rek waaw ñu ko laay yar moom ñu bëggee mu bàyyi diine ñu bëggee affaire xool leen weer nii may si waaye du ko ci wax dara weer bi fi ñun laa koy sama ndëkk si ko wóorul ñoom nit ñi bu ñu waree baax yéen feeñu sama yu nekk si. nijaay weer bi xool naa ko waaye feeñul de. waaw feeñul de gisuma ko de. te sax dama laa bañoon wax rek waaye nijaay. dégg naa ci rajo Barabara FM ñu ne weer bi day kaamil bu feeñ feeñugul de. waaw day kaamil weer bi day kaamil. waaw baax laa ilaaha illallaah waxati na. yaa ko yónnoo di ko xooloo weer. weer bi feeñ na. fe fa xam nga xam ne moo nekk Mbacke média waaw. waaw foofu laa ko dégloo. Barbara FM moo ko gën a leer information. nijaayee te loolu muy wax nañ. yow moo jom nga si ko nijaayee wax gi ci kaw duma ko man daa xaw a gudd. Hmm. Baol Média FM. laa doon déglu léegi. seen seen YouTube bi boo sa duggee léegi di nga ko fekk ñu di ko waxtaane hmm. yaa ngi dégg baax li ma lay wax. Hmm. Baol Média information yu leer naa ñi la ñuy joxe. gis nga boo defee Baol Média info. da ngay am télé bi xoolal moo ngi nii jàpp naa la ko ci boobu. bàyyi bi sax mu ngi niroog ku wan mu gis weer dikk naan gisuma ko ba xam naa ay barabara barabara wax ju jàll la yow nijaay maa ngi dem man li xëdd bi te ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki auditeurs yi rajo Baol Média FM euh, weer wi feeñ na euh, fii ci biir réew mi yëpp ba gis nañu ko incha allah jàmm la koor lañ fas yéene tàmbali koor. maa ngi dem ci bitik ba bay bëgg a dee. ah eggalee nu reer boobu ma dem bitik ba man lijjanti sama xarit bi ma la am. nga naa feqee ñi may yàlla yow doo changé benn yow waaye yow man ak yow ci kër gi dina mel ni toq sa bën saa bëri di nga woor ci force da ngay ñàkk yow ma mën a woorloo yow ku la su tax ma mën a woorloo seytaane man la bay bëgg a dee man ñebe ni mu seytaane moo gën a seytaane fii dara kii mën a moom ci góor yi dara muy jëy baal yi Ndiaye xale jot na de moom waaw waaw Kumba Kumba Kumba Kumba Moolu te ngaa yëg xadd ba doo ko def wóor mbay narwaan xadd te bi yeewu ndaw yooyu lay def de kii jamono bariwut te normal normal la xamaa normal sax. alhamdulilah. ndax moom daanaka dama ko dul kii moo tax. su ma lekkee day métti sama xol bi. baax na rek waaye xëdd moom. baax na. ndox xëdd dafa bokk ci sunna yi. te moom wartu taayal ba taayoo jóg ngir xëdd. wala nga ne soxla naa dama jóg xëdd man taw ma jóg fajar hmm. te jullit bu ci ne da war di jóg fajar day def say naafile hmm. rawat na weeru koor nga jóg xëdd def ci say ñaan te itam ñu rek fi mu dañuy tëdd waaw ko ba boo xëddee ba pare nga julli moom da nga sa xasida wala def sa istifaar ndax weeru koor moom lépp lu ñu santaan lu baax rek ci weeru koor ci la ci la ci la wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi eh, rajo Baol Média FM mboolem ñu koy déglu ñu ñëw ci ndénkaanu bés bi ndénkaan bi nag ci wàllu koor gi xam ngeen ne koor nekk la loo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala daf koo farataal kon fonk na ko te itam fonkloo na ko doomu aadama yi ndax mi ngi ko farataale ci gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee ñaari at ci bisub altine itam ci la ko farataal mu santaane nag ñu di ko woor léegi ngay laaj lan moo tax ñuy woor li tax ñuy woor borom xam-xam yi wuute nañ ci lu bari waaye benn rek laa la ciy jox wax nañ ne Seydina Adama alayhi salaatu wa salaam bi nga xamee ne suñ borom subhaanahu wa taala euh, yàlla xiir na ko ci mu lekk garab googee ca aljana ba mu tuub suñu borom delloo ko ak tuubam nangul ko ak tuubam daf koy digal mu woor fanweeri fan ak seeni guddi wante ñun xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ñu bëgg teral ñu ngir suñu yonent mu woorloo ñu fanweeri fan rek waaye guddi ya bokk ca kon loolu teraanga la loolu suñu borom subhaanahu wa taala mi ko jagleel xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen koy loo yéen ñëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw ndax ci la ñu mën a gën a gaawe amee ak texe soxna Aysa wax na texe gën ci mën a amee ni mu gaawee mooy yónnante bi newoon na ko na nga saxoo fëgg bunti aljana mu ne ko lan laay saxoo fëgg bunti aljana mu ne ko na nga saxoo koor boo saxoo koor rek yaa ngi fëgg bunti aljana kon da ngay gis ne soxna yi am nañ wàccuwaay ci koor bu baax a baax a baax ndax lii soxna yónnante bi sallallahu alayhi wa moom la ko yónnante bi digaloon muy soxna Aysa nga xam ne lu bari ci addis euh, mokkal na ko ci addis yónnante bi sallallahu alayhi daana wax sax ne lu ci bari ci hadiis bu ngeen ko soxlaa dem ci dem leen ci soxna su xees yi soxna su xees yi la mu ci jublu woon mooy Aïsa di soxna si yonent bi kon soxna yi bu ñëw bu weeru koor ñëwee kenn waru leen cee man soxna nag bu dee woor saabu bu gisee ngant rek koor gi xay na teggeeku na ko ak julli gi ba keroo ngant loolu di yëkkati ko bu ngant loolu yëkkati ko julli ko du ko fay wante koor ga dana ko fay incha allah seen boutique xel koom xéewal bi leen indil fajum cosaan bu mucc ayib jëm ci ay produits efficace ci wàllu wér-gi-yaram moo leen doon may seen sketch kooru bool mais